dëkku doore fayoo ko tasoon fullaay jaay Dakar kuy leb leeti na nga ko xam ngir fayeeku bay tax moom koy am fula dëgg rek la def Sénégal mi jël li l'Union européenne jël leen def leen liste noire jël leen roof leen ci gayet ñu amee xër wu njëkku vox populi yéen leen xër wu njëkku journal bi yamul ci kudd ñu roof la ci gayet waaye Sénégal noonee la def l'Union européenne moom mi jël ñaar fukk ak juróom ñaar ci ay dëkk Union européenne te jël leen asamaanam samay kàddu yéen leen xër wu njëkku journal bi fa Alioune Dakar kay dina tëjal ay buntam l'Union européenne ba kenn laal ñu rek ñu diggaale koog moom waaye Sarr yamu ca nee na man seet naa ba seet waaye li ma gën a métti rek ci yëf yi mooy ndóol gu africain yi ndu ba tax rek ku jug yab ñu le quotidien nangoo wax ci ca moom ne ko moo taxit nag fayu ngeen dëgg rek bii attaque moom dal na Vox Populi jëlaat wax ci ca moom ak Alioune Sarr Sarr nee na waaye africain yi lu bon bon bon moom ñoo tane ndax ñoom woppi covid ko ci léegi ko mel na ku leen di feelu naa lu ngeen ci xamul na gabon yi tamit ñoom tëj nañ seeni frontière moom kay union européenne moom tey moom daluñu journal bi ne ñu waa Gabon kay tëjaat nañ ñoom tamit seeni frontière tëjal ko ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay dëkki union européenne ne may ñu kenn ñuy tambaambalu ci seen lasamaan moom kay moom nañu yëpp toog rek moo xam touriste nga moo xam l'homme d'affaires may ñu kenn rek muy dem ak ñëw ndax africain yi moom ñoo tane foofu yeneen dëkk yi ñi bëgg a tane seeni moroom raw seeni maas ba ñu aj seeni vacances ba déwén ñu amee xat wu njëkk journal yi Vox Populi la Sud ñoom ñëpp ñu amee seen xët wu njëkku yéenekaay ak président Macky Sall laas nañu Macky ngi yëkkatiwaat koom-koom réew mi laa tur bi nangoo wax ci ca moom ne ko moom na leen dëgg rek kan la ko koy tontu naan ko xanaa ministre yi ci réew mi ñu waroon a dem féexale ji seen xol dem fële cër bitim réew nopp lu ji noppale waale seeni njaboot vox populi nangoo wax ji ca moom ñu fekk fa président Macky Sall Sall ngaari nee na loolu ngeen di wax de ren ji dara du ci am ren moom liggéey force rek sañu bañ sañu ta bañ waaye Macky yow yamu ca ndax nee na weer yi ñu tambaambal di tëdd ko jug defu ñu dindi ba suñu koom-koomu réew mi nar a suux loolay day loolay day fu ñu jaar rattrapé ko mel dañuy def examen li ñu mënta dabuwaat te kenn mënta xëy ba wax ba jeexal te tuddoo ko te mooy woppi covid 19 ji moo nekk ci xët wu njëkku libération journal bi nañu wopp ji kay moom buñ ci waxul nag moom dinañu jeexal rek ndax amati nañ lu toll ci fukk ak ci ay néew waaye journal bi yamu ca nee na amaat nañ lu toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ñeent ci ay ayubis kott rek waaye journal bi ne ñu li gën a doy waar dëgg rek mooy ayubis ju ne addina bi war ngeen këpp dinañ am lu toll ci cent soixante mille ci ay cas ah man de wopp ji jaaxal na ma ba lëkk ak jàmm